jafe waaye nag koom bi koom gi bu dëgëree mhm. ba xale yi mu wër na leen seen ëllëg mën naa baaxee ci réew mi mhm. mën naa am lu ñu dem maintenant li am li bees te mat a jàngat mooy Ousmane Sonko dafa gëmloo askan wi ne Sénégal yi seen yaakaar bu tas ci Macky Sall li cooneeg Macky Sall moo tax nit ñi di dem Macky Sall jóge na bi maa ngi mën na ñeenti weer te wun nit ñaa ngi dem kon loolee kon xëy na Sénégal yi seen yaakaar daa dékki ci ñoom bi ñu yore réew bi des na mooy li garaaw mooy mbir mi bi mu bi mu fi toogee ba léegi ku dee dañ naan miix mel ni ñu fi nekkut dama jàpp ne nag xanaa war nañ yor xolub yërmande bu ci amee ñoo xam ne dañoo dem ci géej gi faatu fa ñu dem masawu seen i bokk jàpp na suñ do suñ doom yi ñu dañoo gis ci benn bato lañ leen gis ñu dee ci benn ci Porto Rico la xamuma mais xanaa war nañoo dem jëri néew yi waaye fi ne nanguwuñoo sax yëy yàbbi ci xam naa na xëy na lañ doon wax ne maanaam tëleeg Macky Sall moo tax xale yi dem ils se sont rendu compte qu'en fait pour dem gi jotewut ak dara ak tële parce que fu ne la ñu xam ay doomu réew mi lañ si yi nga xamante ne ñoom ñooy jël gaal gi di dem sax ñu gis ni am na ci ñu nekk ci désert bi euh, di woote ah, wàllu boobu ak léegi pour que euh, euh, autorité yi voilà justement te nag ba léegi dégguma lu ci gouvernement bu bi def c'est-à-dire nañu nañu leen jëli parce que c'est vrai dañ doon lañ doon waxu politicien la waaye ginnaaw am na xale yoo xam ne ñu ngi ci jafe-jafe gouvernement bu Sénégal na fexe ba génne leen ci jafe-jafe boobu dafa benn ñi nga xam ne dañoo faatu te seen i néew ñu xam fu ñu nekk nañ leen jël indi leen sol leen ci réew mi ñi nga xam dañoo faatule aussi ñu seet nañu mën a wax te jàppale leen moo gën seen meex ji parce que seen meex ji moom lu tee sénégalais xam ne am na ñuy tukki ba léegi te dama dañu woon tukki bi li ko waral mooy Macky Sall moo tële kon xëy na léegi ñoom ñoo tële ba ba nit ñi di tukki ko dund junj sànq ñu gis ni euh, mardi wala boog mercredi ba ca ginnaaw am na ci ay nomination yoo xamante ne ni indi nañu euh, polémique ci euh, espace public bi muy nomination wu ki nga xamante ne ni moo di kilifa ak nit dof ñu fal leen def leen ay PCA ñiy daab jàpp ni dañoo xeexal projet bi moo tax ñu teg leen fa du compétence ñeneen ñi jàpp ni ay doomu Sénégal lañu donc war nañ leen mën a teg ci yooyu les postes bu ni am nañu euh, critères yi nga xamante ne ni moom la ñuy sélectionné. waaw ginnaaw ñoom lañu waxoon di woon askan wi ne dañuy def appel à candidature teg nañ ko fi suuf moom bu leen neexee sax ñu jël ay béy nommé leen kooku moom vraiment am nañ ci sañ bi bii la mooy euh, nit dof du ma ko boole ak kilifa parce que nit dof xamul lu mu def <laughs> kilifa daf ñu koo jàpp ci tooxi doona ci ay trafic passeport wala yu mel noonu am tout cas ci association malfaiteur <laughs> jàpp ko di ko ñu may ko liberté provisoire yëgaguma fu mu amee non lieu jàpp naa ne Bassirou Diomaye Faye waroon naa jomb di jël ab big di ko signé tur kooku di ko nommé parce que le fait que mu nommé koo xam ne yoon daf koy topp day weddi la mu giñoon le deux avril dina sàmm les institutions constitutionnelles or la justice est une institution constitutionnelle mhm. kon encore une fois li Bassirou Diomaye Faye def c'est un pied de nez à la justice c'est un manque de respect naturel si jàpp naa ne nit ko xam da ngaa bëgg a jubal jubanti da bëgg da ngaa jub bëgg a jubal bëgg a jubanti. Mhm. waroo fekk koo xam dafa def tooxi doona ba yoon di ko tot. Mhm. nga di ko total ndomba tànk ci état su une insulte à la République du Sénégal mais nag da cee mujj waaye du ci jëkku ci te xam naa ne yeneen a ngi ciy topp. Euh, mon fàttali ni ñu ngi euh, toujours ak euh, Mustapha Diakhaté ancien député mom lañuy andal ci seen émission espace public Mustapha Diakhaté ñu wax ci sortie bi nga xamante ni Ousmane Sonko jotoon na ko fee def ay jamando soxal Caaroy 44 muy wax ni la France amul benn droit di choisir de façon unilatérale ay nit yo xamante ni daf leen di daf leen di euh, fësal comme euh, mort pour la France ñu invité woon fa nag démb ki nga xamante ne nii moo di le président Diomaye Faye mais loolu mujjul antu est-ce que euh, déjà ñàkk réero boobu noonu nga xamante ne nii ñu ngi koy gis ci le président Diomaye ak Ousmane Sonko mënul entaché quelque part diplomatie gëmu ne réero am na hmm. parce que cest dire Ousmane Sonko ci boppam moo wax lu yoonam nekkut gis nga ñu ñu ñu ne mort pour la France hmm. ñooñu ils sont morts pour la France ils sont pas morts pour le Sénégal xam nga lan mo jaarul état bu Sénégal république Sénégal di sargal ay tirailleurs sénégalais tirailleurs sénégalais xéxaluñ won Sénégal Senegal. luñ won Sénégal France lañ doon tireel gis nga Senegal. def conquérir Sénégal armée armée conquête coloniale bi ñu ci bari ay tirailleurs sénégalais lañ won guerre Algérie bi tirailleurs sénégalais xéx nañ fa Madagascar dem nañ fa ak Indochine ñoñu c'était des supplétifs de l'armée coloniale française ñooñu Sénégal warul leen a sargal maintenant su fekkee France da leen sargal kooku c'est son problème parce que ñooñu France lañ doon xeexal France leen sargal loolu yoonu kenn nekku ci maa ngi dégg ñu Sénégal dañu créé benn comité pour célébrer les quatre-vingt juróom-ñett fukkeetelu xawma guerre bi la xawma gis nga man mënuma sargal sëñ Touba ma ci 18 safar di sargal ay tirailleurs sénégalais ci mois ci ci ci diggante bi xam sëñ Tuubaa keroog bi ñu koy fu ñu ko jàpp see fu ne ña ko jàpp si ay tirailleurs sénégalais ñoo ko jël si bi mu nekk fi njaari mi def ko résidence surveillée ay su ay ay tirailleurs ñoo ko doon gardé tirailleurs sénégalais du bokkuñu ci histoire bi xeexaluñu woon Sénégal France lañ doon xeex parce que ñi demee France di dee ngir France ba France mu ngi Sénégal ils ne se pas battus pour la liberté du Sénégal pour l'indépendance du mo xam lolou man man moy lima ma gis tënk Ousmane Sonko yoonam niw ci ay tir d'ailleurs gis na sama diine jema a di soppi tudd naan tirailleur africain dama ni tirailleur africain tirailleur sénégalais ku ti affaireu France la ak i tirailleur yoonu état bu Sénégal nekku ci boko ko nak mu metti parce que bo xolé indépendance même buñu fétu indépendance buñu accès président la di jóg taw di len sargal luñu leen sargal ñom xéxal luñu France lañu doon xéxal France mo leen wara sargal

xam nga ñun lan lañ war a def tas suñ tal suñ réew mii xam nga France moom li mu fi def lu bon la xam nañ ko ba pare France daf nu con daf nu coloniser pendant des mu dem bàyyi réew mi ak ñoom Mamadou Dia xam nga ñun lan lañ war a tal mooy xool suñu kanam te bàyyi rétroviseur bi fexe ba suñ réew mi mel ne Algérie mel ne Tunisie mel ne Corée du Sud mel ne Vietnam ci loolu lañ war a góorgóorloo parce que nag fii bu ñu fi toppee naan France yi di jooy naan France yaa ah, nu moom day dem yoonam. kon nekk bi di ce qu'on appelle le panafricanisme pleurnichard nañ ko teg fi suuf fi mu toll moom loolu daal noo ko teg suñu bopp kon encore fa man loolu laay laay encouragé nit ñi pour ñu jublu ci tabax suñu réew te bañ fay nekk di jooy naan France yaa nu duma woon yaa nu colonisé woon alors. ñu dugg tuuti ci peut-être ci euh, CEDEAO balaa euh, ñuy euh, yëkkati jataay bi ak mission bi nga xamante ne ni moom la ñu chargé le président de la République yi pour mu dox jàmm wala bokk mu dox tànku jàmm diggante CEDEAO ak pays yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ci AES. waaw loolu moom man xam nga ñun ay militants panafricanistes lañ de l'intégration africaine. bon Bassirou bi yef yi am fekk ko nek président de la République deuxièmement ndaw la bi yes moy il est il est bien élu démocratiquement kon je crois qu'il est légitime pour dem dox jam diggante wa CEDEAO ak euh, putschistes yooyu fa génn muy Niger Burkina Faso ak Mali mais jàpp naa nag ànd bi moom li ko mën a dëgëral parce que ñi nekkul ci deug moy ñi def coup d'état Mali Niger ak Burkina Faso CEDEAO dafa tere coup d'état ñu def coup d'état kon ku leen di wax la nga leen war a wax mooy ne yéen seen coup d'état bi da ngeen ko teg war a teg suuf organiser des élections anticipées rawatina ci nag ñoom dañoo laytoo woon ne jihadistes yi ñi ngi am doole moo tax ñu def coup d'état waaye la wàll gën a a ay kon encore une fois vraiment moi je le maa ngi li am solo mooy nañu leen wax nañ wax ñu waa dëgg ne leen un seen mbirum coup d'état bi nañ ko démocratiques parce que man li ma xam mooy bu ñu organiser élection libre et démocratique Mali du génn CEDEAO Burkina du génn CEDEAO Niger du génn CEDEAO militaires yi nag ils n'ont légitimité pour di wax au nom des peuples du Mali du Niger et de et du Burkina Faso. premier ministre ji euh, fële nga xamante ne nii moo di euh, Kigali euh, donte am na ci ñu jàpp ni mbir la boo xamante ne nii comme ñoom dañu doon xeex li nga xamante ne nii moom moo di troisième mandat yenuwul maanaa ñu leen di gis foo xamante ne nii président ba dafa doon dafa doon def installé dañ ko doon installé pour loo xamante ne nii quatrième wala cinquième mandat waaw moom day wax dëgg yàlla moom génnam bu njëkk ñaar yim réew yim jëkk dem benn baxu ci parce que Kagame mi ci ñentelu mandam en réalité depuis depuis 1994 mo yor Burkina Faso 30 ans mi ngi nek ci mo yor réew mo te japp na ne bu ko fanam gudd mayee dina am 1000 mandat ma japp na ko xam da nga xex ci sam réew troisième mandat war nga jomb dem di fekki fu ñuy sargale ku am quatrième mandat surtout mu di dictateur beneen bi def mooy ni Ousmane ko doon opposé ñi ko opposé wu ci Rwanda ñëpp eh, Kagame rey na leen ñi opposé wu Kagame ñi ni Ousmane Sonko defoon ña ko doon def yëpp rey na leen agguñu ak defuñu sax loolu toll mu rey leen. kon ku mel noonu jàpp naa ne bu fekkent ne da jóge ci réewum démocratie nekk premier premier ministre doon président démocratiquement élu war ngaa jomba dem ci fu ñuy sargale Kagame bi ci def mooy fi mujj fi deuxième bi. jóge ci réew moo xam ne réewu démocratie la sa président la dañ ko fal démocratiquement mu nommé le premier ministre war ngaa jomb sa deuxième visite nga di ko réserver réew moo xam ne ay putschiste lañ et puis mu dem toog premier ministre bu xamadi boobu bu Mali bi toog foofu di xas CEDEAO te CEDEAO ñoom Mali loolu daal ñoo ko teg seen bopp ñoom ñoo dugg ci garaawali goo xam ne surtout Choguel Maïga man dafay ne Sonko daa xamul kan mooy Choguel Maïga Moussa Traoré la àndaloon biñ ko daanee mu mu sopparñi ko bëgg a nekk mu toog foofu mu cëpp ci kanamam di di di wax xamadi Sénégal du moom déstabiliser Mali Mali ñi ko déstabiliser mooy les putschistes maliens avec ñoom Sogel Maïga Sénégal du déstabiliser musul déstabiliser benn réew li am solo nag ñun nous sommes une vieille la plus vieille démocratie en Afrique ñun lu ñu war défendre la démocratie partout nous ne devons pas aider nous ne devons pas reconnaître des putschistes man da wax ne bu max Macky Sall doon président de la République bi bi max Sall bi place am bu fekke maa fa nek biñ defé embargo bi dama ne lu dul dundu du jaar du jaar port Ndakaaru dem Mali parce que nak kam liñ def modul dul yoon fekk président démocratiquement élu nga coup d'état ko boobaag li ñu bëgg fee tok ay plus de 50 ans ça suffit Mali yag nañu def coup d'état musul leen jëriñ dara 1966 lañ jëk def coup d'état je crois avec contre Modibo kat lu mu leen jëriñ Niger ñaata coup d'état la ñu am lu mu leen jëriñ un président démocrate may li mu bëgg a changer chef d'état major général nga nga nga coup d'état ko c'est-à-dire Ousmane Sonko le fait muy dem ci ñu mel noonu est-ce qu'il ne doon il n'encourage pas l'armée sénégalaise à prendre le pouvoir il faut qu'il arrête na bàyyi putschistes yooyu suñu yoon nekku ci ñoom ñun CEDEAO lañ bokk UEMOA lañ bokk Union africaine lañ bokk Séléka lañ bokk suñu yoon nekku ci les états du Sahel nous nous sommes les états de la CEDEAO et de Moustapha Diakhaté ma euh, toute dernière question laataa ñu yëkk ci euh, jataay bi euh, de façon général sa jàngat ci ni nga xamante ne nii noonu la réew mi di doxee ndax am nga yaakaar ni rupture bi nga xamante ne nii jaayoon nañu ko sénégalais yi ba tax ñu ci bëri ci ñoom dal di leen votel ñu yéeg ci bopp nguur gi dinañ ci yéeg moom xam nga baat boobu nga tudd du ma ko mooy doxe <laughs> xanaa kay ni mu delloo gannaaw ak nu mu taxawee waaye dox moom gisuguma ko fi ah dox waa dara maa ngi gis benn waaye muy tooñ naan ndax ndax dëgëraay bi daa bokk ci projet bi ah li sénégalais yi wax ne mooy wax dëgg réew mi dëgër na ah mun da ñàkk parce que xam nga comme eh, yaakaar moo koy dundal waaye ñii moom dañu maanaam fexe dañoo dugal ci bañ maanaam nit ñi ku am alal sax doo ko ñëwee dépenser parce que dañoo dugal ci nit ñi ne ku yor woto bu rafet da nga koo sàcc ku yor terrain da nga koo sàcc ku yor kër da nga koo sàcc c'est-à-dire ils sont culpabiliser la richesse c'est-à-dire pas. ci seen sont seen nit ñooñu képp et ñi leen muy le ak sont alal ju bare bare lañ yor encore une fois bon man dama naan ni mi ak les gens qui buñ ci defu ndank dina fi doxi dig ba sont lool pour ñu bañ ñu bañ am nañ fexé élection législative yi ñu jëm am majorité assemblée élection législative yi bu ñu am majorité assemblée nationale euh, Moustapha Diakhaté mom la ñu doon euh, dalal ci euh, plateau bi euh, ci sen émission espace public mbégte nak la ñuy am Moustapha saa su nekk rek di la recevoir ci Diaspora News TV fii le ëppee d'abord fii sama kër la mhm. bi dess man ginnaaw damay wax ak askan bi ku ma jox micro man ngay dimbali mhm. euh yalla nañu yalla dimbali rek ba liñ fi wax nek deug te am njariñ te nit ñi koy dégg nag dëgg bañ leen a déranger bañ bañ bañ koo dégg parce que.